laa di élève bu léegi nga mais maa ngi leen di souhaiter une très bonne chance en tout cas daal bi may nekk primaire ayoon naa loolu waaye bi may dem ay secondaire ak ay. <laughs> lycée boobu sama xel. leneen na ca nekkoon. Oh, oh. àndandoo yi rek àndandoo. <laughs> Aliou Ba maa ngi lay ziar ah. eh, ana kooku Sonko Malan. Eh, hmm. Aliou eh, Ablaye Diop maa ngi leen di ziar ak auditeurs yi nga xam ni ñu ngi déglu RFM 94 point 0 yëpp la rajo de toute l' actualité donc age maa ngi lay ziar di wax ni. jërëjëf démb la nga xam ni moom la ñu doon waxtaanee ca. la amoon na solo lool lool lool. Mm-hmm. as loolu dañ koy xaar ci réew. Mm-hmm. réew faaw ñu toog ba ci yàgg. waaw ñu war a toog war a waxtaan. Youssou Ndour woy na ko de. Mm-hmm. waxtaan na gën xuloo. waaw waxtaan na gën xuloo waaw. <laughs> xuloo moom daal lu ca génn. waaw mën ngaa gis xuloo bu ñu paree de li mooy résultat bi. déedéet déedéet <laughs> xam nga moom. Mm. benn day maye ak yëgoo. yëgoo xam nga lu yëgoo. waaw yenn kat yi xëddeen dañuy yëgoo la ñuy wax. harmoniser les positions. benn loolu dina ko maye. bi ci topp dina dàq umpante gi. xam nga boo toogee ne patt ma ne patt ku ne sànni sa moroomi xeer ku ne foog ni sa moroom nen ni la mel. Mhm. bu nu gisee souvent rek da am beneen impression da nga naan ndekkee waa ji nii la mel. Mhm. ndekkee li ma doon foog mhm. lii la. moo ay eh waay maay woon ci erreur. xam waxtaan da koy da koy da koy maye. dàq réeroo aussi. day dàq réeroo réeroo yu bari. bu ñu waxtaanee da nga gis retrouvailles day am. am na benn proverbe buy wax naan euh, réeroo amul. ñàkk waxtaan moo am. mu donc loolu mooy solo gi. bi ci gën a nag neexati mooy day installer la confiance xam nga léegi Sénégal moom nit ñi kenn wóolatul sa morom. Mhm. yow lu ma la wax wax lu mu neex neex yaa ngi xaar ba gis suñ dajee ci mbedd mi ma xool la nen ni sax nga moytu di jaar ca wàll wa ca des donc confiance boobu nga xam ne daa tumuranke ci réew mi de façon générale bu dee ci wàllu politique gi ak ci wàllu diine ji wàllu leneen wàllu yeneen sujets sociaux waxtaan day maye rétablissement mu dikkaat mu dekkiwaat amaat doole mais waxtaan yu sax. waxtaan yu lalu ci dëgg parce que nag dëgg moom ak ay kàcc du ñu masa doon benn mhm. kàcc lu mu rëy rëy rëy lu mu dëgër am bayre bayre fa muy mujjee mooy ci ne làpp wadd mook morso bu yam du mës a taxaw mhm. ab diir nag mun na dañ naan ay kàcc mën na jël ascenseur dëgg gi jël escalier yi waaye dëgg moom day yegg rek kàcc moom lu yàgg-yàgg day wadd mhm. kon waxtaan ci kaw nag mu lalu lépp ci dëgg mais comme euh, directeur ci entreprise comme benn papa ci biir këram gi mu nekk comme ki jàngalekatu daara ci biir mm. daara ji mm. président ci réew ñu ne démb dañoo gis président mu indi neex deret mm-hmm. euh, di kaf di reetaan ak gaañ est-ce que soxlawul loolu est-ce que soxlawul gaañ yi mm-hmm. euh, fekk ko fi nga xam ne fa la nekk ñu waxtaan ak moom mu wax la leen ne ci moom gars yi wax la ne ci moom waaw xam nga xam nga crise de confiance boobu amoon moo tax mm-hmm. lu ni mel gëjaam gars yi dañu mel dañoo nammante woon seen biir boo gisee mais crise moo amoon ah léegi j'espère man samay yaakaar rek laay wax ci li nga xam ne aussi mooy intérêt Sénégal. Mhm. parce que fook naa ne aba kilifa ya ma gis ci palais ba démb amuñu jot rek xalaa foog amuñu jot. parce que ay kilifa yu sell laa fa gis ci diine ji ci dans tous les secteurs. Mhm. des anciens mhm. ministres des gens qui ont fait l'état ñoo xam ne démb tekki nañ fi lu bari. Euh, professeur Iba Der Thiam euh, Abdoulaye Makhtar Diop gis naa ko foofu pour ne pas me tromper di lim ñeneen ñi. Famara Ibrahima Sagna. donc am jot kese yóbbuwu leen fa donc moo tax ma ne loolu. daf ci baax ñu tënkee fa dara. Mhm. donc ni nga ko waxee président keneen na ci yam parce que avant d' être président nit nga. avant d' être animateur yow Aba nit nga. Mhm. bàyyi ko ci njaboot. Mhm. avant de ainsi de suite ainsi de suite avant d' un général. souvent nit ñi mbubb yi ñuy sol mooy yóbbu jëmm yi ca nag jëmm ji balaa nga xam ne jëmm ji benn la Aba dee jot booy wuy ji sa borom. da ngaa mës a gis lii mooy bàmmeelu président bi mooy bàmmeelu baadoola ba. Mm, baañ takkal ko ay grade yi ca kaw lay yem. dëgg la fan lay suruxal. Mm-hmm. yaag ñëpp a yem. wallaahi wallaahi donc jëmm yi moo am solo. Mm-hmm. jikko yi moo am solo. kon moom soxla na ree ji soxla na dàq koor gi de mu ngi naan maa ngi gis ay bid ay ay biddiw bëccëg. xaw ma nag ñan mm-hmm. ñoo koy. sub temb boo gisee fonction bi metti moo tax il faut que nag am ñu la wër. jamonoy buur loolu la woon conseiller. conseiller quand on parle conseiller. waxuma de àndandoo de di xool nu ma lay dóore mais conseil mooy lu mu xalaat ci lu baax wax la ko ak générosité nga mer ak nga bañ a mer ak yoonam du ci ne. Mhm. waaye na wax li mu xalaat ne day defar avec beaucoup de générosité et de personnalité àndub nawle boo ma nar de def conseil ci defoo ma nawle ba ma fa ma ne. Mhm. Mhm. en toute chose. man mii tey bu ma nee Aba kaay ne sama conseil bu yoo xam nga doo nangu ma man man may ne fang ca kaw ba di la nappaaje yow. Mm-hmm. doo ko nangu. waaw lu ma la wax tamit nga bàyyi ko dem def li nga xam ni moom moo la neex ma bëgg a continuer. nekk sa mbaa fu may wax ci mbooloo nga rabroué ma. Mm-hmm, mm-hmm. du ma ko nangu ga euh, ñàkk kersa du ma ko nangu. boo ma ko defee ci mbooloo xam. du ma ko nangu. <laughs> donc daal âge kon fi ñu toll nii euh, xalaat yi war nañoo. dal ñu xam ni. peut-être wax wax wax ñu nekk ay nit ay nit kese lañu. Mhm, mhm. weeru koor ku ne xam nga nit kese nga. Mhm. di jaamu yàlla xam ni buur bi benn la. bu nu waree ñu bëgg a nekk leneen lu may dul ay nit nañu kon ne nekk ay nit. yóbbu ko ci ay proportion normal mbir yi ci xam ne Sénégal mu ngi dëgmal lu am solo pétrole ak gaz du ay caaxaan waaye nag bu ñu caaxaanee mu doon musiba ci ñun dëgg la dëgg la donc c'est d'où l'importance de ce pacte euh, de stabilité nationale bi ñëpp di ñaan. am na solo ak dal am ñu yëgoo sur l' essentiel bu defee ñi nga xam dañuy xaar occasion pour dugg. am na solo am na yoo xam ni. mais abaa bu ñu la nee jamono toll na foo xam nit mu ngi xaar accident pour sàcc montre bi néew bi takk ci accident bi. Mhm. nga xam ni kon am na saay saay occasion bu leen ko may. Mhm, mhm, bu leen may occasion boobu. ah ci sama xalaatu bopp man euh, balaa ma lay bàyyi nga waxtaan ak askan wi mooy man euh, président bi ma gis ak gouvernement bi mu teg euh, mu yoon woo xam ni ci yoonu la nekk. waaw waaw nee na démb. Ah, man ci li ma wax nii li mu wane nii. depuis le début. mais bien sûr ku falu bees. damaa falu. Mm. ñu falaat ma. Mm. aw ma pour neexal kenn su ma neexoon ma def na ñëwoon daan def. wallaay may woote mm-hmm. yaa ngi woote waxtaan. yaa ngi mm-hmm. loolu bonne volonté la maintenant mu des l' mais loolu ku ne xam nga ni lu ne fàng kenn du ko jeex. mais léegi mu ngi des léegi ci doxalin bi wax na ko démb nekkatuma ci ay njuuj njaaj donc euh, même opposition ba fa teewoon ñu ngi xaw a commencé am confiance donc loolu laa wax ni bu rétablir déjà rek li ci des day yomb. bu dee ak naxanteeg muusante day tas ndajem muusante boo mës gis aba ci tas la jëm ah. am na solo ma bàyyi la ak askan wi nga waxtaan ak ñoom euh, boo noppee ñu dawal tuuti page de pub après nga xam ni dañ ko boo dajeeg alkaati mooy ñu luus ñi lañ koy summi waaye ci xalaas gi émission bu mag ba tey day ñëwaat maa abale woon démb heure bi hmm. émission bu mag bi tey day ñëwaat parce que débat bu mag tamit ñu nit démb. Ah, am na solo aw ma benn réccu euh, ah, abal gi ma abal heure hmm? parce que audience bi baax na te <laughs> askan wi dañ koy déglu Ablaye Diop. Eh. faaw ñu waxtaanee li nga xam ne mooy feet yi eh, xaar ñi nga xam ne. <laughs> feeti lan eh, ah, ma bàyyi la nga waxtaan ak askan wi waxtaanal ak askan wi te bàyyi mag sama askan man. da ngay <laughs> da ngaa anticiper ngénte li tey. kori gi la cinq la abaa wax na dëgg nag. teranga la waaw jàppalante dimbalante fii lañ ko fekk Sénégal gis naa benn film démb am ku ci bëgg a tere woyaan gi man léegi yéen a Ablaye kii daa tukki woon bo yow sa bopp sa bopp la ñuy la ñuy maye nga naan damay tere woyaan <laughs> jërë ngeen jëf mbokk yi.